daal mën naa leen wax ne bég na ndax participer ci vingt-huitième édition bu foire internationale de Dakar une foire chargée d'histoire waaye tey ma ñëw nag am honneur honneur bi lan moo ko waral mooy dama nekk marraine nu journée bi may féliciter parrain bi waaye nag dama am beneen mbégte mooy li ma fi gis. suñu potentiel bi nga xam ne moom lañu am gis fi suñu savoir faire bi nga xam ne moom la ñu am. économie du jëggaani ñëw du jaay. naan bokk na ci li nga am moom ngay valoriser. te ñun ñëpp daanu ci jàpp ndax. la région de Thiès elle est très riche de par son économie de par ses ressources également est riche de par ses hommes et de femmes riche de sa créativité. wax deug yalla ku gis exposition bi gis également ses produits produits yi ñu exposé ne c'est pas des produits yo sont dañ ko choisir Nirek. rek wóor mané segg ko finalement on a retenu les meilleurs produits au niveau de la foire internationale de Dakar. L'INI c'est important. On euh, di constitué un en GIE une entreprise individuelle de mener cette activité, yi dañ accompagner je pense que c'est un signal fort. Je xamante lancer à l'endroit certainement de la chambre de commerce Je parce que aussi ils ont besoin d'être encadrés il faut nous encadrer d'abord parce que c'est des chefs d'entreprise Un chef d'entreprise euh, pour ce qui concerne les transformations de produits de céréales locales de produits locaux avec euh, euh, wax l'artisanat, avant tout d'abord c'est des chefs d'entreprise il faut que nous formalisions formaliser wu cet avantage qu'est-ce là? parce que vous formaliser wul euh, nga dem ci chambre de commerce nga am par exemple euh, un registre de commerce nga dem impôt nga wut un euh, ak tous les papiers yoo xamante ne la entreprise la soxla soo amul tamit waxuma sa liguey dina dox bu baax de mais dina am lo xamantene da fay donc c'est un appel que je lance euh, wax deug yalla ak suñu mbokk yi jigéen yi jàmbaar lañu wax deug yalla nañu formaliser wu avec l'accompagnement de la chambre de commerce en cas des chambres consulaires ñu mën a euh, am seen papier yi war parce que tey ji dama leen jox benn exemple rek am na lu ñuy wax quitus fiscal quitus fiscal boo nekkulee en règle nga am say papier yi war mënoo bokk ci benn marché té amna aussi ñii ni, bëgg ngeen mag. fi ngeen commencé di def ay transformation ay création mais ëllëg je pense que les plus grandes entreprises n'ont pas commencé donc da ngeen di def euh, ndànk ndànk comme on le dit maintenant jusqu'à atteindre les sommets mais lu leen di permettre na ngeen atteindre au sommet moy ñu xam leen d'abord du point de vue administratif euh, économie bi dafay demander euh, un accompagnement participatif à tous les niveaux donc je pense que si vous joue bougez bu je pense que l'économie de caisse ne peut pas être bu parce que ce n'est euh, pas la qualité qui manque Nous avons un savoir-faire nous avons une initiative donc si vous accompagner je pense que yëf yi fay bax mu nek lo xamantene aussi di nek njëriñ euh, pour toute la société pour tout l'État euh, pour tout le pays du Sénégal euh, l'État du Sénégal